saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su fii si Daaru Njaay TV. A'uuzu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima murit bi ngàlla xeeraw maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati murit bi ngàlla xeeraw maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaayi bamba ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamlee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man basiirooti yàlla ma def géwalub seex bamba ak ña dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti way naa seex bamba ak doomam ya tey ma mébët ne ca ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati te jooja sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wasiiw na fi dunyaa dun ko deeyaate ak bokku xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pasteef ca fam féete jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la waxati yàllaa ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare di maamam satub maam dem ba njaay njare kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan lu jiitu seex bamba feeñ lislaam lañuy noote ñoo toqi daarul asan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko sóob seen yoon wu baax waati baayam bu baax ba turam waay seex muhammadu njaay ñu naa ko moor faati laaj leen njaboot gaati ndeyam jayit ndey yonnen moom la bokkalu tur lu yàlla nam nga gis tànnam ga feeñ caati maam soxna amina kan mooy ismuha dëggalal jii ndey ju ndey la tëb sangam gërëm kooti daa farlu woon ca këram def itte sàkku ngërëm ba am ko buur yàlla jël sëñ jox kooti buur yàlla sàkk na jaam yooyu seeni ndey wéyaful ngir ñoom dañuy tan seen waajur ya déngaati ngir nday ju bon juy xuloo kay toog di xas sëriñam di wàññi dépaas du koy jur doom ju yéemaate ku baax ta sell di sonnal yàlla ak sëriñam te sàmm mooy jur ku ñuy raamal di ñaan looti lii tanga am doom ju ñuy raamal ndeyaa ko lëggéey lu baax nga tex bay ko moo tax góom nga yiwwaati sa doom ja la di kuñ xam ci jub ak rafetal dib seex bu seey ci sëriñ Tuubaa sa ngam sëriñ bi jox na ko yëf yooy ab yafus du ko yor ciy mbóot yu biire tere yéem naa ko mën miiti yéem naa sëriñ daaru ngir fam bokk ak na mu mel ci dëggu ak dëddu dunyaa jublu oxoraati yéem naa ko ci sàmmaku way ak ci wattandiku ak fonki bokkam di leen seetee ka terlaate yéem naa ko ci gëm akuk lislaami dee ko jam sarixatoog suna ñooy yoonam yu jub yéem naa ko ci dëgël ak pastéef bu sell te rëy ak yar ñu ñam ña ci diineeg yoonu bambaati yéem naa ko ngir istuwaaram riis ga dem na dayo ku xam ca aslëf lu tuut tuut fawu yéem kooti diglul ma wax la fi aslëf man ci mbir yu ma xam ci mbooti daarul asan njaay mii ma fiy wayati njarek sayar gee njaambur moom la feeñe atum junneeg juróom ñeenti téeméer ak lu tof tuuti tofal na cib lim juróom fukk ak juróom ñetti at cib tënk mooy hansa sin neel tekki seet looti miilaadi yaadi atum xiisaa ci laa ko defal taarix ba jàpp ko 1858 ati rafet ne feeñiin ñu jortal ko liggéey bu rafet tuddew turam rafetal asan gisal liiti yor nañ ko yar ko fa ba mat xëy dalal ko fa baa sëñ njaay aram samba daa jàngal sëriñ baati fa moom la nekk ba njàngam xaaj mu xëy ba ko fa ngay yoroy fa mu dem ngir jàngi xam kooti foofee la ba wàccaat mokkalee fa itam ba bind kaamil bu wow xëy ñaan lu dellooti ca yooyaat la laxas dem nii gi mbàkke kajoor di jàngi xam-xam fa maam moor anta mbërmaati mu gis fa seex ibra saar ak ki sëriñ masamba jóob xaritam ñuy bokk lal baate foofee la sëriñ tuubaa ca daara ja jàngee ka jàngale tey ñaaxoo ka ñaaxaate mu def ko ab soppe ngir xemmem meloom wacce moom seex bamba daa sopp mooy koŋ mus la soofaate ci lii la sax ba sëriñ mor anta wàcci liggéey ciw tam xarit ca sasin nit ak juróom ñettati ca yaaya fan la fa jóg yëggul mu dellu si waat gis bamba jox koy mbiram pas-pas ba yokkooti fekkoon na njool màkkanaa seex bàmba rikki bul yam ci jàngile yow del woote jëm ci itte ca moomaat la ko naa fas daana woote bi bir keroog la ñenn ña dem ngir réere woote am gaayu nangu ca jaayante topp sëriñ tuubaa di diglu ndigal tey daw tereem gaati seex aadama jëkkal gëm seex bàmba maa la ko wax Cheikh Ibra Saar ba ci sëñ daam jiit lante sëñ ñëw moom itam jaayante xaamisuha la tànn méngoona ak waxtu juróom yaati keroog la jaay mbokk gaag léppam fasoog ñamu am taqoog sëriñ Bamba mi tey wut mbégam maati day xëy di gontu fa moom tey diglu ay ndigalam lum wax mu def lum ni déet mu daw ko tuubeeti jàng ak liggéey taxaneeg rootaani guddi bëccëg ci la nekkoon ba xëy jël ndam la ñibbeeti bambaa ko tarbiya moo tax cëri ya toqi na ceg jaamoo ka topp ndigal ak roy ñu baax ñaati du moy boroomam du tooñ nawleem du mus lu araam lum baax lefab jox sëriñ tuubaa sangam jëfam ju ja la jël jiital ca itte ju réy naa làq man ngërëmal buur yàlla lay mébati neewoon na seex bamba bis ñëw naa di wut ngërëmal buur yàlla nag ma ko jox gan laa teral maati diglul ma wax la bayit yam bind jox ko sëriñ tuubaa nga xam ni asan mébét ma rëy naati ataytukal yawma dayfan ak lu banna riba rabbil bara yàlla wi yulil maqaamaati خرايا يا سقتي رضوانه ابدا بغير سخط وتوبيخ وآفات يلي بيت لا وخون شيخ بامب ابونا لي نمت نا ñar fukki way ak ñet xam koti بامب way نكو اي ابيات نوني يلا بهول بشير لكو ديف ديغلول ما وخلاتي جزاك ربك في الدارين يا حسن خيرا بجاه الذي من نجله الحسن حتى تهوس الذي ترجو وتأمله ممن له قد بدا الكتمان والعلن فاعلم بأن يا راد هنك متلب أن جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تسل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك الحسيان والفتن يلي بيت لسرين توبا دفون دبيرل ngeureum la señ deeru am ci seede fum amati diglul ma wax la batay señ deeru bam yewi ko ba ñibbi ak ya ca xew kon tay nga waarooti bambaa ko ñaanal mu dem ak yar bu mat ba ca moom fulaam jaag fayda jaag pastef ba muy woote ñu na ko deet bu mu jibli bokul ak lenu xam xaw ko xatal ba mu dem gis bamba mbeur cheikh Bamba na ko dalal te sante yalla bu yeur ko mas de samp lu baax aku ga mel niiti la na ko demal keur mor ma jeng falo siar ko dem ci wetu gannar ci permati ngay doxte yasi wal Quran moy sendigal ba ak sinasi nga def fofé sa dal baati te nek fa bur yalla ak yonen ba ma fayit dana fa ñaw luma am yawit nga am ciati keroog la sanc dëkkam boobee ba tudde ko faf daaru salaami wilew lay woote mbooloo ma fëx ni jalañ bokkam ya fekk si ko mu boole leen di teral ku mer mu reelooti ku réer mu gindi ku néew dooleet mu dimbali ko seex bamba def ko mbërëm mam samp foofaati moo tax ñu nangu ca teel jaayam te def ko sëriñ aslamtu nafsi jëjib mu sant farlooti na toom ba dem ni meles mbégteem ma ñëw ni jalañ muy soññi njàng ma ak liggéey ca tool yaati ci lii la nekk ba am mbooloo mu kenn gënu leen te ëpp leen pas-pasit yombul ci yoon weeti Seex Bàmba xëy ni jalañ moom it fa dëeru salaam sëñ dëeru teeru ko tey bernde ka kem ñetti fan la fa am mbooloo ya ñëw di siyaar danaa sëriñ daaru yaa am gan gu jombaate keroog la sant ba bég daanoo te fab am joxaat ko ak ñamu am naanoo ngi yees looti sëriñ ba nangul ko léppam ñaax ko sant ko faat ñaanal ko dellu mu des naa man du may tëddati keroog la fedd li gëm yokkooti far lu ci jëf naa coona ñëw na amul nof lay ci kër géeti day dëkke julli di woor tey naa fi laaka durus quraanu ak di liggéey sellal garaw faati ma wax la tuuti ci ay jagleem nga xam ni kemam yombul te yombul te yombul nag ma teew looti buur yàlla may na ko fum toogaan janaaw bu sabee mu xam la muy wax ba koy leeral fa gaañaati dencoon na doomi sëriñ tuubaa mag jañu naa mam soxna faat ja walaay gii jagle rëy naati moo masa jiiteet sëriñ tuubaa jullik farata gii jagle doy ci ay jagleem nangul maati ma wax def gannaaw daaru nga xam ni mës la toog faste ay baaraam fa réew maati daa génn daaru ngir suuf su safa moom dem jàllu daaru biram boo di dog looti ñoomit ñu teeru dalal koog jàmm jox ko cëram jiital ko di muriitam pas-pas ba yokkooti dundal na suusa dundal fag jaamu yar fa nooyal ko jàll feneen mbooloom ma jóg darati keroog la dem sañci Tuubaa Njaay dëkkam ba mu miin te daa fa jaamu ba dem firdaw si ndaw joote jàmbaar ju ràññiku ci la fit wa yéenéem jërëy mébétam semmal njaboot gaati allam ba toñ na ko def fay daara njàng ma jib sikkar sa jolli liggéey bay dox dëggal maati jaambur bu jaambure njaambur dib dëkkam ci lu bir muy mbër bëroon ci lu baax biiram gamel ni biti foofee la yokke yu baaxam yépp guddi bëccëg subaake ngoon amatul noflaay lu tuut tuuti foofee la daa jóge jaar tuub saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay